呃。 bikum njiiti réew bu càdd Idriss Déby fañ koo fetal ci dënn xak ci bopp mu faatu ñàkk bakkanam Allah Dakar Times moo ñu ko xamal te mooy yéene kaay na ko njiiti réew bu càdd fañ koo rey ca toolu xare l'observateur na ko balu fetal ci jëlañ ko dóor tëf loolu mooy firndeel ne jàmbaar la woon ku xam fit ndax su fekkoon fa doon daw balu fetal ba ca gannaaw lay dal Dakar Times ne ay rebel yu tuddee seen boppu fact ñoom fa ñoo mës a bañ ne juróom benneelu mandat ba mu am di jiite réew ma rek na du bàyyi mandat bu jeex mu laajaat beneen mandat nekkee fa di buur di bummi moo tax rebelle yooyu fippu na ko fii doo fi amele juróom benneelu mandat si du quotidien na ko moo taxit faat nañ ko ca toolu xare te ñàkk na juróom benneelu mandat am ba alintin bi jiite Afrikajom centre ne càdd nag fi mu toll nii réew maa ngi ca guuta de hé buñ ca waxut fi lay doxee yàqu enquête yéen a kaay na ko sayel ci boppam fi mu toll nii fay lox yànq yow début mi ñu rey moo doon xeex ñàkkante ak waa bokk xaraam ak yeneen jihadistes yi ba tax carna ñaa ne réewum Tchad su yëngoo réew yi ko wër yépp ay yëngatu ba ci sax Sénégal réewum France nag ña ngay jooy seen lëkkaloo bu mag bu leen doon jàppale ci xeex wàllu terroriste ba tax ña ngay ragal kaa waxam ci réew ma ak dëkk yi ko wër wal fajir yéene kaay ne faatoog débi bari na ay laaj yu xamagu tontu de soldaaru réew ma carte gaa nga fa nar a jaxasoo réew yi ci àdduna bi ñu bëri waxuñ de fa ñoo noppi le quotidien yéene kaay ko ginnaaw buñ nag doomam moo ko remplacé yor a ja ne foog ngeen ne loolu jàmm la réew moo xam ne daal fa mel ne ay buur a nekk rek ku jógee ca wala ñu rey la ñoom remplacé la loolu baaxut vox populi ne dal moom fi mu toll nii yaakaaratuñ ko ca càdd ak réewu Sahel yi fanweeru xatu yàlla ci la débbi jiite réew ma bëggoon a def juróom-benneelu mandat faloon nañ ko sax ba pare di waaye nguur ga jeex na ndax rey nañ ko conseil national ba nag ci jébbale nguur ga ñoo dimbale taxaw doom ja ngir mu remplace ko fii fukki weer ak juróom-ñett amal ay élection mu joxe nguur ga Dakar Times na leen hee def leen ndànk de ki ko r moom débbi nekku doomam de ah ah doomam yu mag yi muy Zakaria ak Abdul Karim ñoom fa ñoo ci ki remplacé seen baay ndax neneen kooku seen baa juru ko dëgg-dëgg fa ko adopté woon maanaam jël ko yar ko waaye juru ko ci gañoom ñaareel ba bokkut ak ñoom waaso maanaam xeet jabaru débbi nag première dame ba moom daw na wëqet jël ay doomam dem Dubaay làqatu ji foofa ndax réew ma fi mu toll dara fa wóorut lii yéene kaay mel ni ko naan ko yaay yéey daw de ndax yow sax mën nañ laa rey di ndax yëfi li muy niru mooy Idriss Déby mii ki ko rey wàllu règlement de compte familial la maanaam biir njaboot gi ndax nee nañu doomu bàjjanam moo ko rey koo xam te soldaar la ko bokkoon ci ñu ko doon garde li mooy jëf xam ne Déby def na ko ci waajuram mu dencal ko mer moomu ci mi Macky Sall nag sargal na Idriss lu rafetlu taxawaayam ci la Soleil yéene kaay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne saytu gi ñuy saytu fichier électoral bi léegi tey mu pare expert yi ko doon xamal ña nga ca cappaandaw la njeextalu weeru avril wii fa ñoo nar a génnee li ñuy wax pré rapport maanaam xayma gu njëkk ca seen liggéey ba su a yéene kaay ñu ko xamal te su loolu amee mooy ne élection locale yi kon mën nañ koo amal te du yàgg dara locale yi nag ca géejawaay mairie ba critique yéene kaay nee na mel na ni Aliou Sall del suwaat na de comme baag na les Sall ña ngay joxe kurpañ de ci yorinu ndaw ñi ndaw yay liggéeyee nag ca Sabodala fañ leen di dàq dàq gu métti ba tax fa ñoo yóbbu ci yoon société ba leen jëloon muy biyaa direct news moo ñu ko xamal société ba nag la mu xamle mooy li tax mu leen di dàq fa leen a xàttana tut xaalis moo xamatut ca kër ga liggéeykat dina ko dulóol rek de yow fa ñoo joxut sax cër ci gàttal yeneen ndaw yu ñu joxut cër mooy ndaw yu PS yi ñoo ko wax nee na seen kilifa yi ñoom Aminata Mbengue Ndiaye faale wuñu ndax seen morom yëpp a ngi liggéey waaye ndaw PS yi fa ñuy taxawaalu mosal gi leen Aminata a liggéey bu ñu leen foxantoo seen yéenekaay yéenekaay bi di témoin xëy moom di laajte ne Mimi Touré ak Aline Badara Cissé lan la ñuy nas ci ban pexe lañ nekk yow seetal Aline Badara Cissé fa dem seeti ji Mimi Touré ñu waxtaan lu yàgg yéenekaay bi na loolu am na lu muy xañ de mbaa du fa ñoo nar a xànd ñëw dal ci kaw Macky man ma dal ci l'observateur fekk fa seexal islaam Islam Ibrahima Niass bàyyi Niass ak weeru korom ci atum 1974 ba tey yéenekaay bi dikk ñun ci secret bi nekk ci nebedaay ak Cheikh al hôpital dalal jàmm kilifa yaa ngay yokk matériel ak jumtuwaayu kaay ya libération moom di ñu xamal ne xale bu jigéen parental bi xamoon ñetti at ak genn wàll ñu fekkoon ko mu faatu ci ab foos gannaaw enquête ba takk der ya teg nañ loxo ñaar kenn ka mooy borom daara jam doon jàngee keneen ka mooy sëriñ daara ba fañ leen a njëkkoon a jàpp ba leen jàppaat nañ leen ndax ay kàddu yu wuute yu ñu wax ne xam na ca lañ wax doonte nag weddi nañ ba tëdd ca naaj wa ne laala wuñ ci li ni mel turbine yéene kaay moom di ñu xamal ne juróom benn doomu aadama faatu nañu ñàkk seen bakkan ci ab accident àll allah yëf yaa nga xamee ca yoonu Fatick wa wetu njongoloor ñeen fukki doomu aadama nag ak juróom benn xam nañ ca gaañu-gaañu xam na ñoo xam ne nag ñu nga ca diggante du ak dee lii yéene kaay na ko bu ko wàññi juróom-ñaari doomu aadama ñoo ca faatu ëpp na juróom benn hab camion fa mbëkkante tampon rañaan hab biis moo andi li ni mel exclusif yéene kaay na ko ma yokka leen ci xam na ñaar nit ñu faatu ci ab accident ca Bambilor askana wàcc ca mbedd ma ne doo daan lañ soxla l'observateur moom di ñu xamal mbir mu yéema ah. benn waay daal takk der yi fañ koo teg loxo am lu mu def léegi nag ñu yóbbu ko ca tribunal bu ndakaaru di ko attee waaye fañ ko dugal ca biir tribunal ba ngir mu jàkkaarloog attekat bi mu atte ko foofa la waaj a faatoo ñàkk bakkanam aay waa ma ne fa ngeen ko doon xatte ci kanam xattekat yi ki leen dàq ñëw yóbbu ko yéen ña ko bëggoon a atte da xanaa jommi ngeen nag